ma jóg tey bind bataaxal bu ma diis lool jëm ci kiinu jiite te ay doomu aadama ni moom tànn ko def ko njiit ni ko tey yaa nu jiite doy loola am yaakaar ci moo tax ñu jiital la waaye du gënu juddu ndax am na ñu la fi ëpp alal am ñu la fi ëpp xam-xam mbaa ñu gën la judd njiit nanga xam ni tey ñi nga jiite am na say maasu yaay am na say maasu baay say maasu maama ngi say bàjj na kiy mag say rakk a kii kiy jaay ngir xamal ni fi nga nekk tey yàllaa la fi teg nga jiite ay doomu aadama xamal ni yàlla mi la fi teg gëmul nelawul ëllëg da la fiy jële tegaat fi doomu aadama njiit na xam ni góor dëgg su jiitee la muy xëntewoo mooy lëggéeyal ña ko fa teg ba bu ëllëgee fu mu génne ñu koy sagoo di ko woyal di ko feccal jël yóbbu ca kaw teg njiit nanga nga xam ne kullukum raaxañ te bu ëllëgee yàlla dana la laaj li ma la dénkoon ci àdduna te bu boobaa danuy tëj sa làmmiñ say benn benn ay wax amul ku naan ci fàtte njiit yaakaar naa su mbooloo dajaloo juboo ci kàddu tabb la nga jiite leen waroo cee bég bay feetu di fecc kay sabar kon naroo ëllëg bégal leen njiit ay doomu aadama buñ dajalee seen alal jox la ko ngir nga liggéeyal leen boo ragalee yàlla sa fitna mooy liggéey waaye du sàcc dërëm mbaa milliard kon ëllëg nga bett leen njiit est-ce xam nga ne suñu wér gu yaram yaa ni ci mën a jàppale 80 pour cent ndax lépp lu ñuy utiliser mu ñuy feebar bu dugg loon ci biir réew mi duñ ko xam de pourtant njiit xanaa xamoon ne lépp lu ñuy feebar boo ko bolokee ba du dugg ci biir réew mi tey dalay noppal wàññi la mbooleem jéego boo doon dox ci sante bii ci réew mi tey njiit xanaa xamoon ni bëgg sa réew ci gëm yàlla la bokk ngeen gi mindéef moo nu ko wax xubbul watani minal imaan kon bëggal sa réew nangoo liggéey moo gën xaar ñu la koy wax Makhtar Talif Vision